yaa sa nga noonu suñu. waa PDS. waaw moom vraiment. dëgg yàlla tey zéro faute et puis bon le vraiment et puis yàlla a aussi. bon bu le jaune. tey moom non non non tey non eh waxal. mënoon naa jël sa koppati bi indi ko. bees la mais defuma ko. non non defuma ko. waaw. Ahmed. oui nuyul waa Zik FM après boo nuyoo ak Zik FM ba pare nga meññ tuuti si yonent yàlla Moussa s'il te plaît. gis nga. s'il te plaît non parce que c'est d'actualité. Euh, waaw ñu ngi nuyu waa Zik FM yëpp. nuyu ñu nekk ci kaw talibe nuyu ñëpp daal talibe yi particulier yi ñëpp ñëpp ba ca takk dër yi ne ci mbedd mi sax taxaw. waaw non waa Tëngéej kay. dalee ko ci ba daaw dañu waaw waaw suñu papa daaw dañu ñaan wax leen ñu dal rek. ah bon. waaw maa mi ngi nii. construction bi da leen koo may wuy ma. Siré Siré maa pikiru la. ah aas Euh, noonu non non que piqûre bi xam nga <laughs> président de la république démb bu mu ah. piqûre ba pare. waaw dafa wax wax ju xaw a doy waar ba nga xam ne ma yaakaar ne piqûre bi dafa commencé def effet secondaire. effet la wax ah, yenn xam ni. turbine loolu la wax. def ni ay effet. waaw ba pare deuxièmement même président bi muy wax sax. xam président en général dafa nit ku calme la ku dal. non non bi muy wax da doon def nii def nii. non yow Siré. Mhm. Siré mhm. lii moom sama wax la. Mhm. yegg seeguma ci journaux yi. lii du lu bees ci Macky. comme ñii ñuy jël di yóbbu seeraas nii comme ñoom Ousmane Sonko mais sa waay def wax na ci sëriñ si loxo dar gémmeñ Macky Sall wax na ci sportif fii loxo dar gémmeñ wax na ci sport wax na ci jeune wax maanaam moom moom yenn saa yi da nga naan kii est-ce que am na ay conseil am matière de com xam nga boo leen ñaquwul ma jël ko maye ko comme si Macky moom moo génnee xaalis ci poosam dem jëndal ñu ay ñax comme sa papa rek nga feebar mu dem faje la xam nga benn jour dama ko doon wax euh, benn waay parce que def doomu aadama doomu aadama souvent nit ñi Ablaye Wade par exemple il était très fort dans l'improvisation foo ko fekk ci àdduna boo ko kiwee il va dire le mot juste mais président bu fekkee yow yàlla may la a improviser yem ci lire discours cest à que balaa ngaa wax dara ngay lire sa discours bu discours am yenn yi du ay affaire u njàngat yooyu non nit ki la Macky noonu la mel lii ñuy wax nii ci ay ñoom Sonko ak ay yàgg na fee am mais gars yi dañu seetaan te cartum réew mi comme l'a dit Sonko moo leen may ñu résister. Mhm. dëgg la wala dëgg. le droit à la défense. waaw mais la résistance. Mhm. waaw ana Joni Joni. la société Joni Joni anam. bugaan su politiqueul woon taxaw ne lu ma Macky gën léeg léeg lii ànd ak ay adversaire u yi Joni Joni ngi dox. télé yi ñu ko fi jot a tëj yépp parce que da nga fiy invité opposant Ousmane Sonko li ngi ne du ci dal tëj ko dëgg loolu wala dëgg. Karim dañ ko ne ni nga yoree réew mi nice good fine taxoo dara mais dañ lay tëj gàddaay loola Macky était le ministre de l'intérieur le patron du commandement territorial et le patron des collectivités territoriales mu ne jamonoy belees ba tey caisse d'avance bi ni ñu koy defee nikel ba moom bi mu fi jaaree ni ñu koy defee nickel mais nekk na président Khalifa sonné na ko mu ne c'est plus nickel déggoo ma de mhm. dëgg loolu dëgg loolu moo continuer jël gaa yi yóbbu seeraas yàgg na fi boo leen teeyul tam ñu yóbbuwaat leen seeraas buggaan day réglé seeraas ñeneen ñi ñëw yëpp réglé wala seeraas Ousmane Sonko réglé wala seeraas foofu nag tollootuñ fa ci mim réew Macky bu résisté wul woon ak ak Ablaye Wade le mandat de trop mooy le troisième mandat Ablaye da koy def. te ñu ngi doon laam-laamee la dévolution monarchique. Mmh. mais il a résisté en appelant le peuple. dans la rue en demandant à l'armée mm. et à la police. de prendre ses responsabilités. prendre ah, mais ñeneen ñi def ko ñu ne insurrection. Macky moomul réew mi xaaral ñu ñëw fii tribune yee ne waaw loolu man la. Mm-hmm. lii nag journal bi moo ne Macky moo ne soo leen pikiiruwul ma jël ñàqu yi may ko yeneen réewu Afrique yi. <laughs> waaw à fait. Macky def na réew mi moomeelu boppam. Mm-hmm. ah en tout cas de daf ñoo caxoon de. ba léegi nag càqar beeguñ ko neewoon nañu moom il se voit en sa Tend sa veut tout dire. en Moïse Tend Dior. le 31 décembre président nee na. lui il se voit en 2014 yóbbantewul man maa toog. Mhm. mu nañu ñi àndul ak man maanaam l' opposition. réduire l' opposition à sa plus simple expression et puis yow un démocrate nan ngay waxee ne man samay opposant dinaa leen tëcc alors que statut opposition am. Mhm. opposition dañ ko war a dooleel. société civile presse privée indépendante. ah bàyyi Moussa waa wax nga dëgg mu ko temps bi ba. je te mm-hmm. ah contexte bi xam nga yàlla mooy joxe nguur. Mm-hmm. bu koy teggi it moo koy jël. Mm-hmm. yaas nee na daal insisté na pour ma ñam tuuti ci Moussa. Firawna moo ak Moussa. dëgg loolu dëgg. <laughs> ba ko buxaaba yi waxee ne ko ki lay folli dana juddu de ki lay folli. léegi mu judd ndaw su fa ëmb boo amee doom bu dee góor firaaw na rey ñu ne ko lii bu continuer nañ dem ba armée bi dootul am góor mu ne kon at bii bu ma reyee at bii di ñëw damay tëb mais at bi muy rey la Moussa judd pour wax la yàlla ay mbiram dafa garaaw yaayam teg ko ci leket mu dem dex ga nga rey ji kër firaaw na waaye firaaw na dafa feebuloon ci jabaram borom xam-xam yi nee nañ bu daan sëy ak moom yàlla mbaam la koy tegal bu jigéen mosuñoo séq dara. bu bëggee rek Moussa jabar ji def intervention ay nijaay ñun am doom lii mu ba ko. Firawna bang bi mu bi ay toni ton la ci or. Moussa di ram benn yoon rek dóor ko bang bi yëngu. Firawna xam ne kii. ci xale. beneen bi mu fopp Moussa di ko bambaane yooyu Moussa jàpp ci sëkkin bi. sëree lu mu def biir sikkidu firaaru bi tërëp mu rëccale ne teen ci nee na de yaa sa gis gaet te si sikkin bi comme sa papa foofu la nii rek ngay jàpp sikkin bi di foofu ba tey ci xale ci xale bébé ak ni firaaw na amee woon doole Moussa béf sikkin bi mu ne la la rëccale ne leen ne deen <laughs> à suivre à suivre vendredi prochain baax na <laughs> c'est bon siré dee ngi jooy sax jëlal siré jëlal siré bu ma jël jëlal gaay kii falu yow kii falu yàlla nu ne la koy sàkkee déggoo ma de waaye yow nga taxaw fii naan ay fii mel ten ten de joor yow da nga am maamu buur ma naan ten de joor terminé yéen kaa ñëw ak ñun ci Sonko nee na pare na à tout défier tamit wàllum justice bi la terminé yéen kaay wax wal fajri nañu Ousmane sonk nag fi mu nekk nii fipp na ma ngay radicalisé wu ma ngay radicalisé wu de te nee na mortal combat bi mënatul ñàkk inévitable moom Sonko mooy wax de na ne Serigne Bassirou Gueye Samba Sall Mamadou Seck gis nga trio bii ñoom daal dañuy taxaw fële di def lu deful li ñoom ñett ñi koy def dégg nga loolu Macky Sall ko bàyyi réew mi ko Le Quotidien yéene kaay ñëw ñun tii Sonko nag fi mu nekk lay jël la mboy ki la Macky yaa ko wax nagum séerans dañ lay rey moom kay da ngay fiqu balaa ngaa yegg wa ilaa maara day taali et moom sax nag moom Sonko mi dafa ñëw indi son droit à la résistance à l'oppression constitution moom moo ko wax islam ko njëkk santaane boo amee lu la naqari jëlal jaasi bu la leeree ne boo demee dañ lay rey waxal ba ñëpp dégg la su la leeree ne boo waxee noonu bi da rey duggal sa biir néeg wala sa biir duus jooyal ba nit ñi xam ne lii naqari na la Macky nag dañoo tolloogu moom fu ñuy jooyee Sonko ñëw ak ñun ci Sud Quotidien ils sont ngi nii nee na te Macky bi yoon bu ko bu ko bëggee liquider bu ko bëggee liquider ay loxoom dana takk de ah oui pour jël nii rek seeraas nii yóbbu nii comme ni mu def gars yi ah déedéet <laughs> bi yoon so non non non non non non non ñun nañu delloo suñ jooni jooni gi rek source a ñëw ak ñun ci gis nga Aïda nee nañ assemblée tey dina leen xamal ne leen mais Sonko xamoon na bu yàgg ne moom mii mais gars yi dañ koy sànq il est l'homme à abattre déggoo ma de mais gis nga àttekat bi daaw damin wax na ci naataango la àttekat bi bu bu bu ñu laalee malaanu kiiraange gi rek léegi nag ubbil nañ ko yoon wax dox rek lay def parce que dara léegi baareetu ko su soo ko bañee nag mandat naa ne bi dikk joxe këyit takk der yi dem këyir ko jëli ko par force ci nii ak ci nee mais Sonko nee na nag loolu nag du ca dal moo tax réew mi ko tijjee nañu Sonko ngi nii résister le mandat d'amener et le mandat de dépôt nee na ñoom Macky Sall lii moo leen obnubilé joxe kayit ñu dugal la ci kaso joxe kayit ñu dugal la ci kaso joxe kayit ñu dugal la ci kaso ñoom dafa mel ni kaso dañ ko dañ ñamu ñamuñu ko. ñamuñu ko ñamuñu ko. yàlla ñoom le quotidien yéen kaay nañu gis nga ko laal li malaanam gi nag moom fi nii ne nii. ci mantoom bi la ni ngoy ah ci jàllaabam bi la ni ngoy téye ci Ousmane Sonko nee na fi ñu jaar ci boppam moo baaxul déedéet kii toppe kii toppe dafa ne man alxam laay wër attakat bi ne ko ah mu ne waaw waaye yow enquêtal ba jot alxam nga ñëw wax waa ji ne ko kii nga doon wër gis naa ko waaye man alxam laay wër x juge ma ne la ah, x daal mooy Sonko au oh nom de la ah l'observateur nañu aje ngi. <laughs> waaw Ahmed Ahmed kii aji la. ah xaw ma de. man de xaw ma aji. ñu ngi koy laam-laamee ndax moo. journal bi daal la ngi nii coow li bari na ñii nee nañ aji demul tribunal ñii ne dem na l'observateur nee na mi ngi nii escorté nañ ko comme ni ñuy escorté buur. man mbay nga ne kii aji la. ah Fatou Binetou Cissé daa mel ni aji la de mi ngi nii ñu ubbul bunt bi de. kii moom la nii. a ah, ah, en tout cas. surtout ah, aji aji moom ay photo rek laa ci gis. Alioune Badara Seck de nee nañ moo moo moo photo lii photo l'observateur. quand a ngi ñëw waxuma ABC de ABS. moo ko photo escorté nañ ko. Hmm? aje ngi. Aji Sarr a ngi nii les écoles yéene ne eh. Aji Sarr bi ñu ko dégloo démb. Hmm. démb la gën a nekk à l'aise. démb de. ah oui du samay kàddu journal bee ko wax. Hmm. les échos nee na Adji Sarr insiste persiste et signe et devant le juge maanaam wax ji mu wax ci kanamu àttekat bi moo gën a dëju lenn ca PV ya la film des faits ni mu ko nitilee démb moo gën a mu mu gel bi dafa gën a précise wax ji gën a toog dégg nga léegi nag Sidi Ahmed mbay Ndeye Khady Ibrahima jëkkër jël ak Sonko. léegi ñoom ñoo ci des. ñoom la war a entendre waaw entendre. man damaa bëgg xam kan moo fekkee procès Adji bi. moo ma jaaxal maam. waa déet ah. waaw kan moo ko fekkee. ay avocats. avocat kese. avocat ñoo génn wax loolu. avocat yi kan ak kan la yi ban avocat ak ban avocat la ma mbay. maître El Hadj Diouf moo wax démb. maître El Hadj Diouf man. parce que man wax si d'après ni ñu waxee. mu ni. Ah, ñaata yoon lañ leen tere ñu génn wax. moom gaa yàgg nañu wax si dossier bi. doom ndey waxal. ban ban PV yëpp mi ngi ci waa ne waa ngi ci. bàyyi leen raay mbell gi. la Sénégal nañu makkee ngi mi ngi menacé sénégalais di ngeen ñàkk ko wala ma jël ko may ko ñeneen. Macky dafa fàtte ne oto bi muy dawal sax moomu ko xam nga loolu mooy différence ñu dénk la ak nit lambda buy dox kii de oto mii dawal sax dañ ko koo dénk <laughs> kër gi muy fanaan gaa yi cotisé moomul dara ci ñun réew dara mu ne mu ne dina ko jël joxe ko moo tax direct news ne ko ah non monsieur président vous n'avez pas le droit de donner nos vaccins déedéet amoo ci benn sañ-sañ dëgg nga loolu mu ne ko menacé ne da ngay joxe suñuy garab loolu rek du argument sax boo xam ne moom la kilifa di war di wax pour yey sa sa askan convaincre leen mu ngi nii journal la jógee fee bi ko ñaari question ne ko ñaara fi ne lim de su dee dañ koo jënd suñu xaalis la su dee dañu koo may aussi waaye askan wi lañ ko may le peuple bu dee don la c'est au nom du te bu dee tamit dañ koo jënd suñuy impôt la suñuy ñaq ak suñu deret kon kay yow ma kii moom a ci dara mm. non ñii bu doon mën ak ñoom ak ñoom rek ba léegi ñoqali nañu. Ahmed yaa ngi si 4242 mbaa xeeboo li ngay def na. ci lan 4000. 4242. boo jekkoo dem baax non non damay damay ñëw dem. Hmm? damay ñëw dem évidence. évidence a ngi nii gis nga Ousmane Sonko ngi nii li mu wax ci Mamadou Seck seen triangle baa ngi nii aji nag déglu nañ déglu nañ ko jël na makki bi. direct news enquête yéen a kay ñëw ak ñun arrestation bi illégale et imminente programmée par Macky. ah yàggatul dara kon. moo tax démb mu ne leen ma maa ngi dem de si de tàggoo naa. bul dem non non balaa ma leen a bett Ousmane Sonko nee na su doon ma ak Macky rek rek rek rek rek rek wala APR Pastef rek rek rek. gaa yi ñokkali nañ. <laughs> ah monsieur le maire war nga entraîner de. war war nga entraîné de. ah waaye Seydou Guèye waaye sa biir génn na de Ahmed war ngaa jóg sa bopp de merci beaucoup El Hadji Ahmed Aïdara ci revue des titres